monsieur Thiaw laay wax rek ne ko euh, bu ñu nekkee ci émission di waxtaan Pape Djibril Fall nekku fi ñoom ñaar li ñu seexoon man je le connais pas ah ñoom ñaar li ñu seexoon waa ji baax na mu baaxut jub na mu jubut day wax dëgg du wax dëgg loolu c'est gauche mu toog ci télé en tant que responsable politique en tant que leader te c'est quelqu'un que je respecte beaucoup muy toog di wax yenn défaut waa ji ci télé loolu boo ko bëggee def ci émission bu mel nii man boo ko defee je connais pas la personne dégguma version moom yow li nga wax nii moom mën na wax leneen parce que àdduna mooy doxee noonu da ngay wax nii kële wax leneen kële donc pour man en tant que leader boo toogee ci émission euh, jarul sax dugg ci yenn détails yi peut-être boo ci waree dugg nag nga leeral sénégalais yi. nga def foofu foofu benn benn. xam man nit ki dama koy nangul sa liberté. parce que da doon ja wax expliquer euh, expérience am en politique. moo tax mënoon na mënoon na bañ a tudd turam sax wax ba ñëpp xam ni moom lay wax. waaw mais oui mais ok léegi yow ñëwal ci yow. donc non non xaaral xaaral ba xaaral ba boo duggee ci détail boobu rek man après damay yàq sa émission. parce que li ngay def xam naa ko non xaaral ba xaaral rek après tu as le temps xoolal sëñ bi. da ngay wax du ma politicien de métier da ngeen war xam loolu. non xoolal xam nga man. li gaw su politicien de métier. waaw te je veux même pas être un politicien de métier. waaw ce que j'ai à le dire. da nga koy wax da nga koy wax. d'accord nangul naa la maintenant si les gens ça les plaît pas kon bu ñëw di ba xoomal plateau parce que loolu la xam ne nit loo may def xamal loo may def parce que quand il y a des choses man duma dara Sénégal ñëpp xam ne je transparent amul kenn ku mën a wër Sénégal ne ko ah daf maa sàcc daf maa yore xaalis wala daf maa tuyande. loo bëgg a wax da d' accord. waaw ne la géré seen bopp rek. non peut être daf doon bëgg a def appréciation. Euh, demal sama question s'il vous plaît. léegi foofu la waaw demal sama question Euh, Sénégal. dama sama question rek. Sénégal politicien politicien politicien de métier euh, mën na am waaye ñun bokkuñu si. oui mais peut-être wax ji moomoo ko. mais damay wax rek non xam nga tamit bu fekkee ne euh, da nga nekk dañu nekk di débattre euh, du man maa baax yeneen politiciens yi baaxuñu du man maa kilin yeneen politiciens yi kilin gis nga tey Sénégal képp ku fi def politique pour man ñun ñëpp ñoo bokk benn objectif mooy Sénégal jëm kanam. maintenant nit ku nekk nag am nga say qualité am nga say défaut yàlla moo bind nit ñi dañuy gënante dégg naa euh, Khalifa Sall Idrissa Seck ak ñoom ñu ñu jëlee seen i xaalis sax yooyu. non xam nga c'est très important parce que lu tax dañu nekk dans la scène politique ñun tamit dañuy liggéey dañuy am tuuti weccit loo xam ne ñu ñoo koy liggéey seen bopp suba waruñoo jox impression ñi ñuy seetaan que ne les politiciens sont des voleurs alors que ne tey man Idi je see que ne. si est-ce que tudd nañ fi turam fii ci plateau. non si wax na bi ngay wax affaire caution yi wax na ko ba ba tudd. ak Khalifa Sall ay corps de contrôle tey Idi c'est un consultant man je le défends pas bu toogee biir non déglu ma léegi kon ñu maasaale ñëpp. ak ñoom ñëpp léegi kii Khalifa Sall tamit man li ma xam ci moom mooy que ne. mu ngi liggéey il gagne très bien sa vie maintenant nag du nekk fii comme moom ni mu nekkee fii. di exposer sa vie. waaw léegi dama bàyyi sama liggéey. léegi ñu tëj boobu sinon day mel ni débat bi c'est entre vous deux donc donc léegi ñu ñëw ci kii bi feneen fi may jeexalee mooy que ne. Euh, euh, Thiaw je suis désolé boo nee coalition jot na nga bokkoon. man non bokk coalition mais xaaral ma wax la rek su ma bokk coalition. coalition jot na leen jàppale. voilà non c'est-à-dire que ne pas jàppale sax que jot na man ku doon dugg jot na j'étais le chargé de relations extérieures boo ñëwee si Ousmane Sonko sax ci man ngay ñëwaat képp ku doon dugg. 2019 ah. man mosuma la ah 2018 avant 2019 sax laa la wax Sonko président laa la wax. waaw kuy dugg balaa ngay dugg dinaa xamante yow. parce que durant 2018 euh, euh, ba 2019 ba après tout ce qui est relations extérieures moo maa ko yor amul tey ku dugg si biir jot Sonko président ak jot na. non dañuy mën na leen a jàppale. waaw non c'est-à-dire dafa naan jàppale na bu mën a jàppale na jot na dafa naan jàppale na Ousmane Sonko. beneen bi mooy àndoon coalition beneen bi mooy beneen bi mooy Yacine Fall sama sama yaay la sama sœur la ku baax la. Euh, Ablaye Niane la doon xëccool pas présidence bi sax mais mais mais mais mais mais comité exécutif national bi donc pour pour. maintenant